maa ngi lay nuyu di la ziar di jaajëfal di la remercier aussi ci disponibilité bi di jaajëfal surtout liggéey bu am solo bi ngeen di def ndax euh, barki démb rek moo si mujj jour installation bu monsieur le maire ak équipe am keroog am na ñoo xamante ne newuñu woon sax mairie ba mais ñu ngi doon suivre en direct et en intégralité li doon xew à mairie mu mel ne ñoom ñu nga fa donc liggéey bu rafet boobu ngeen di def dañ leen ci sant di leen gërëm. Euh, di leen ñaanal rek ngeen dem ba site internet yi nga la zone sud bi la commune de Moussa mais ci Sénégal yëpp di nuyu la population de la commune de Kermoussa Moussa di nuyu la population de la zone sud di nuyu waa ak waa Suun Wolof nga xamante man fii laa dëkk di la jaajëfal bu baax baax ci déplacement bi. solo ci nuyu lu yàggul la muy xew-xew bu mag bu amoon fii ci Sénégal mais rawatina fi nga xam ne mooy commune bu Kër Moussa ñu rafetlu lool ginnaaw ba nga xamante ne weesu na mais aussi mu weesu ci li nga xamante ne mooy jàmm ñu xam ni monsieur le maire surtout fi nga xamante ne mooy zone sud bi ñu remarque ni ren jii daf fee perte perte boo xamante perte bu rëy et aussi loolu mu doon loo xamante ne xaaru ko ci woon li nga xamante ne mooy commune bu Kër Moussa mais waaye fi nga xamante ne mooy zone sud tey isa loo ñu mën a jox. ci loolu noonu ana nan ngay jàngate loolu noonu. waaw sëñ balaa ñu yàgg foofu damay nuyuwaat encore une fois di jaajëfal surtout surtout la population de Thiambox su ma nee càmbox mooy suun wolof ak càmbox ndax ñun yàlla dogal na ne ñun benn dëkk la ñun ñoo bokk fu ñuy voté administrativement parlant ñaari village la mais bu dee rek ci dundin ñun benn la bañ nañ ko ba benn bureau la ñu am yàlla dogal comme li nga laaj mu nekk benn exception. ndax zone sud d'une manière générale monsieur le maire d'a perte élection il naam mais yàlla dogal na ñun au niveau de Thiambox ñu def différence le dogal ñu gagné bureau bi euh, ay ténor yoo xamante ne ñu ngi ci coalition Yewwi Askan Wi wala benen coalition de Thiambox mais malgré tout ñun dañ leen gagner gagné avec une écart de trente voix donc di ci sant bu baax a baax a baax waa Thiambox di leen remercier di jaajëfal ñëpp ci seen taxawaay ba loolu am bu loolu weesoo nag résultat yi comme ni nga ko au niveau zonal biñ ko jàngatee défaite fi mais man c'était prévisible pourquoi parce que nous <clears throat> avons à notre niveau coordination des apéristes Nous nga au niveau de la zone sud ñun yàgg nañu xam ne lii pourquoi <clears throat> Dans may événement yoo xamante ne opposants yi ci diaboliser le maire bi fi nek muy le maire Momar Ciss jaxase kook nit ñi événement yooyu mooy lan situation forage bi am fi paan ay dur. ñepp xamne li ni nii du domaine saxu maire mais comité de gestion forage bi la mais opposants yi profito bi yëgoon nga sa marche biñ ñu wo ay ténor de l'opposition d'alors ñom alors ñoom Thierno Alassane Sall la ñu ñëw yàq xelu nit ñi diaboliser woné na monsieur le maire mom moy euh, le plus grand responsable de situation bobu non benen bi Nous ambulance bi non fi ay ñamono ñu profito ci def récupération politique def communication bu pour diaboliser le maire yoy yep nak mu dajaloo ñun à notre niveau ñu warona def travail à à au préalable dugaat ci nit ñi informer len mais ba lors de la campagne Euh, des des des des élections municipales mais biñ ñëwee ci terrain bi ñun jéem nañu apporter une touche wax askanu dëgg bi mais c'était trop tard moo waral nga gis yenn dëkk yi boo ko Yaakaar perte fa ak score bu baree baree bari te ñun ñun nangu ko nag ba pare nag def ay jàngat li waral loolu comme ni ma la ko waxee xam ko mais jéem a wut ay pexe yoo xamante ne suñu delluwaatee ci élection dañuy récupérer ndax zone sud maire mosu koo perte mais nag am na beneen muy zone sud dafa am ren ñaari candidat yoo xamante ne doomu gox bi lañu te musul am zone bi musul am candidat histoire commune Kër Moussa zone sud musul am benn candidat bu fi soxeekoo lu dul élection yi mu am ñaari candidat yoo xamante ne doomi gox bi lañu fii la ñu jàngee yeewoo fi màggee fi ba doon tey li ñu doon ba ñeme taxaw rek laa te ku xam population yi ni ñuy voté ak élection locale nga ne xamante ne élection de proximité la yow mii boo dëkkee benn dëkk boo yëkkatee ne da ngaa bëgg doon maire suñ sañoon waa dëkk boobu kat dañu naan suñu maire kat bëgg nañ mu yewoo suñu dëkk donc c'était forcé ñoom ñu votel ku mel noonu loolu tamit beneen explication la. mais foofu noonu foofu noonu am na am na a parce que bu fekkente ne côté doomi gox bi la yaakaar naa monsieur le maire gën gën gën leen ci yeey parce que ci d'après ci li ñu dégg ci ci ay kàddu mun nañ ni eh, fi nga xam ne mooy laandu fa la yaram et aussi est loolu war naa mën a nekk benn di nga xam te ne fa lañ fa la tey ngeen mhm. Mhm. xam nga loolu nee naa la benn paramètre rek la mais li li li li waral défaite bi dafa jiitu loolu nee naa la candidature yi jóge soxee ko ci zone bi muy mon frère Malick Diouf bu gox yu bees muy mon frère Aliou Diouf bu bunt bi ñoom ñëpp doomi gox bi lañ mais nee naa la li jiitu loolu dafa am ay faits yu réels yoo xamante ne dafay xew ci zone bi te ñun responsable APR yi ak responsable Benno Bokk Yaakaar ba ci staffu monsieur le maire jëluñu woon lee devant jamono boobu seetaan ko muy raam di dem ci ñax bi te ñoom jëluñu les devant nee naa la daa am ay situation yoo xamante ne dafa yàgg di xew bu ñu xëyoon tey nii diw baaxul diw baaxul yow taxawoo nga leeral lu tax nga ne diw boobu ku baax la bu yàggee rek loolu bu duggee ci nopp nit ñi loolu moo fay des te loolu dañ cee yàgg liggéey ñoom opposition bi ñun ñu taxaw di leen seetaan bi loolu amee nag ñun ñu mu amaat beneen fait yu majeur yeneen fait muy ñu amaat yeneen ñaari candidat yu taxaw temm laajte ñaari fait yooyu bu dajalee ci gox pour nga gañe fa du yomb te li ñu ëppoon nag obstacle bi gënoon a rëy mooy lan yàggaayu monsieur le maire ci commune bi koo dajal surtout jeune génération bi xooluñu ndax liggéey na xoolul ndax liggéeyul xam nga lan la ñuy wax dafee yàgg bi ma juddoo ba léegi moom lay dégg boobu fee tamit bokk ci li waral ñun ñu gën a perte élection ci zone bi kon donc suñu déggee kàddu yi dafay mel ni aussi tamit ñi nga xam te ñoo fi nekk monsieur mu maire am na taxawaay bu am solo bu ñu waroon taxaw eh, taxawu taxawuñ ko dafay mel ni loolu loolu loolu bokk na ci li nga xam te ne bokk na tax ngeen ñàkk fii. je confirme. voilà taxawaay bi daa desoon. Mhm. ci départ ba nag. dem nañ ba ci campagne yi nag liggéey liggéey bi mucc ayib ñun ak groupe bi ñu àndal yëpp mais liggéey boobu noonu dafa waroon am lu jiitu campagne bi. mais kon est-ce jotul aussi tamit. maam képp kuñ fa kuñ kuñ kuñ kuñ fa yebal ngay conseil nekk fa ci ci ci mairie bi aussi nga amee taxawaay boo xamante ne nga xam ne kat eh, sa gox nga fi teewal est que jotul aussi tamit ñoom ñoom ñu xam loolu dafay mel ni ñoom dañuy fàtte ni askan wi lañu fi teewal. non man liggéey conseil sax dama koy rafetlu mais man dama gëm né politique du question de conseil ou pas man mi dé du conseil mais bari na conseil yo xamantene bu dé côté politique ma len ëpp taxaway. maag ñi melé man donc du question né conseil ou pas bien vrai que bo xesee ba né conseil to conseil pour ben village mais mais pour toute la commune là. te gëm na né conseil yi né commune yëpp ñu ngi rendre service à toute la commune mm-hmm. sans nak parti pris quoi loolu la ci gëm mm-hmm.

le maire. C'est ce est L'élection est passée depuis le 23. L'élection mhm. est passée depuis le 23. Monsieur le maire a gagné. Nous tous savons qu'il a gagné. Vous voyez l'élection locale, il n'y Si nous avons gagné, nous avons gagné de 400 et quelques voix. nous, avons PV, avons le jour J, nous avons gagné 600 voix. Man, nous avons gagné 723 voix. Nous avons gagné le l'élection, nous avons gagné. waaye yeewi askan wi xaw ma yeewante seen biir li ñu def ay caaxaan la mënoo dem élection nga am machine électorale comme ni ñu koy tuddee nga am ay représentant de bureau fépp ci commune bi nga am ay mandataire fépp ci commune bi ñu indil la ay PV résultat yi génn 22 heures monsieur le maire ak ay ñoñam xam ne gagné nañ la ñoom ñu jibile nga xëy pour nasaxal xelu nit ñi nga ne da ngay dugal ay galgal ay recours candida boo xamante ne dem na bay wax ci ay groupe whatsapp am nañ leen mettre la pression mettre la pression koo xamante ne yëgalu ko sax sa yaram yaramam monsieur le maire li ñu doon def manigance yooyu naan nañu mettre la pression coalition Benno Bokk Yaakaar billaahi yëgalu ko yaramam ndax xam na ne gagné na te xoolal li ñu doon def noonu yëpp ay guddal jël la c'est normal nag ndax man béttuma ci mu jóge ci seen candidat le doyen Ibrahima Ciss ndax ko xamante da nga dem ak maire élection 2009 mu duma la nga dem ak mom élection 2014 mu wat la nga ñew 2022 nga jàpp ne mooy sa dernière chance nga def ay pexé jóge ci AFP jóge ci FSDBJ jóge ci façon parti bu bi yon nak nga né daj dépp bi fan la pire na dem langaaw mu fa pour nek maire Kër Moussa mu ñewat mu gën pire mu wat la c'était normal mu mettre toutes les pressions yu mu mën pour jéem a nasaxal xelu nit ñi waye lu dégg du yag te loolu moo feeñ monsieur le maire gañewaat ko pour la énième fois ñu installé ko ñu war jublu ci liggéey bi nag. ñu war a jublu ci liggéey bi et aussi lan nga ñu mën a jox quelque projet yoo xam ne da ngeen ko dëgmal ci lu yàggul dara. waaw mairie Kër Moussa dafa nekk mairie boo xamante ne dafa nekk ci ay tànk dem kanam mais pas tànk dellu gannaaw bu ñu fàttalee ñun communauté rurale lañu yoroon lu yàggul mais 2014 lañ nekk commune ak. acte trois de la décentralisation bi ñu amee commune ba léegi monsieur le maire en tant que visionnaire en tant qu'homme homme d'expérience mu ngi teg ay jéego pour commune bi jëm kanam te loolu yéen xam ngeen ko ay projet ñu ngi génn te kanam la jëm ren ñu ngi nii soog jël fonction mercredi lañ leen installé Voter guñ sax le budget de l'année te buñ ko voté dama pour bientôt projet yëpp doléance yi comme ni ko waxé bari na ndax amna ay école yo xamante ci compétence am nak lañuy wax ndax maire aussi ay domaine de compétence transféré lañu yoré mais seen compétence fi mu yem monsieur le maire da koy jéggi sax di intervenir ci fo xamante du domaine am pour rek lo xamante mom moy nataxal mu gën natal naatal dundinu askanu doomu Kër Moussa té loolu moy vision ndax tollu na tay lo xamante ne amatul lu muy prouver ci politique monsieur le maire tollootul lu muy wat dara li mu nak lay jéem a liggéeyal askan wi ba mu ñoom ni nga ko waxee yoon na ci suñu sànce muy yoon yi du ma ne dinañ ko goudronné de mais dinañ ko defar ba dëkk boo bëgg a dem léegi léegi nga nga nga jaar ci yoon boo xamante ne pratical praticable nga dem fa courant dina nekk loo xamante ne vieille doléance la bientôt boo ñëwaatee fii nii incha allahu rabbi ci li ma gëm te mu nekk ci ay sàncam dëkk boo dugg fekk fa courant ndox la même chose ba démb rek moo ci mujjee ñu ngi doon indi ay mu ngi doon réceptionné ay tuyau pour extension kilomètre 50 jàpp Kër Medoune te loolu ay sànc la te bu jógee foofu zone sud lay ñëw donc c'est machallah macha allah chance amat yenen entreprise yo xamantene ñu ngi lu ci monsieur le maire en tant que visionnaire tel jël devant ba li ñu daloon entreprise yi loolu liko waralon ñun ñu xam des fois mais bi yoon yalla dogal na ak SIMAF amul donc ñuy ñaan yàlla simaf ñëw installé wu mu nekk njëriñu doomu Kër Moussa yëpp te gëm naa ne ak monsieur le maire loolu day day am incha allah. incha allah ak élection yi ginnaaw élection 23 janvier ñu war a jublu ci yeneen e-, élection muy élection législative yi ana ban taxawaay ngeen ci amee. waaw ñun moom yàlla dogal na ne coalition Benno Bokk Yaakaar euh, balaatu ma remercier waat encore une fois la jeunesse surtout seen taxawaay ak les femmes ci élection yi ñu jógee ñu amoon ci man confiance ba jiitaloon ma le comité électoral des jeunes de la coalition Benno Bokk yakar ñu jëma ci ay élection taxaway bi rek ñun même dispositif lañuy nous la réitéré ñun dañoo am ben groupe bo xamante yalla dogal na né c'est un groupe très soudé bien vrai que nak ay groupe mom bu ñuy and des fois du ñak ay malentendus mais lool non c'est c'est c'est c'est c'est insignifiant par rapport ak doxalinu groupe bi d'une manière générale donc élection yooyu dañ koy jëlat au sérieux comme toutes les élections nous avons ko bien vrai que procédure bi commencé le 3 mars déjà d'après information yi ñu am le inscription yi di démarrer dinañ jëlee devant suñu nit ñi bindu wat jour élection yi campagne politique lepp li ci war ñun ñu def ko ba les élections Il faut lancer un appel encore une fois aux autorités du parti surtout de l'Alliance pour la République de lancer la coalition Benno bokoyakar on appelle solennel di len xamal ne la commune de Kermoussa, les lu ko warloog la coalition lepp lu ko warloog monsieur le président def nañ ko depuis bimu ande président Macky Sall ba légui toutes les élections yi fi jaar monsieur le maire Dakar remporté haut la main mais je regrette que Bob ba légui gisuma ben doomu Kermoussa, buñu jox promotion bi ci war ci poste de responsabilité yi am au niveau du parti nak lay wax à part monsieur le maire bi nek au conseil amul jeunes jeune bu ñu promouvoir même poste de chargé de mission il est temps que ça cesse il est temps que ñu am reconnaissance nomination yi ñuy a ci yenen dëkk yi décret yi ñuy signal yenen dëkk yi Kër Moussa moo leen ko gën mérito bu électorat ko passe-passe moo leen ko ëpp gagné des élections on a gagné toutes les élections donc damay réclamer des postes de responsabilité au niveau de la coalition et au niveau du parti pour que mu revenir aux jeunes et aux femmes de la coalition de il est temps loolu mom sama cri de cœur la te dina porter le combat ba élection législative yi ñu jëm doomu Kër Moussa li ñuy ñaan mu bok ci liste pour nek député mu doon njëriñu toute la commune té loolu ñun dinañ porter ce combat là. voilà da ci am solo lool et aussi fexe ba commune bi aussi même bu fekkente ben député la sax wala ñaar ñu am ko aussi voilà ñu am ndaw yoo xam dañu téwal ci ndaw réew ngir ñu mun ñu xéxal aussi li nga xam tane mom lañ soxla. ngir mu mun a àgg fi nga xam te ne mooy ci euh, monsieur le président Macky Sall ginnaaw loolu am coow loo xam te ne amoon na fi muy coow bu rëy muy ginaaw euh, diggante euh, kii nu mu coalition buntu bi ak waa Benno Bokk Yaakaar coow bëri na ñu ne coalition buntu bi waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko créé pour wàññi doole gaay yi Isaaka aussi tamit loolu ñàkkut war nga cee mën a joxe kàddu yu leer. waaw loolu moom xam nga politique ku nekk am na sa. appréciation personnelle boy demee ci situation bu monté posé mais man lima gëm élection yi passé ni coalition buntu bi comme yenen coalition yu amone Sénégal ëllëg Sénégal ak coalition yu monti doon ku mu neex nga taxaw nga ne ci man la bokk walla mais loolu amaluñu importance xam lan moo ñu amal importance élection yi passé ñun Kër musa six candidats la ñu amoon mais ñun ñëpp xam nañu kan mooy kan ak kan moo dul kan ku nekk ak opposition ku nekkul lenn moo leen yiteloon mooy gagner la commune pour liggéeyal askan wi man loolu laa gëm mais élection yooyu mu ngi suñu gannaaw buntu bi ak beneen bu mu mënti doon gox yu bees ak beneen man xam nga lan laa gëm élection locale passé na 2027 lay amaat li des mooy liggéey pour la population li des mooy liggéeyal la communauté mm-hmm. foofu nag maa ngi lancer un appel à toutes les composantes de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar le camarade Aliou Diouf en premier dama koy lancer un appel na ñëw rejoindre monsieur le maire Momar nous ñu and liggéey ndax élection législative yi ñu jëm du élection commune du élection gox goxaat comme niñ koy waxee mais élection pour toute la république la té président Macky Sall dafa bëgg une majorité écrasante pour mën gouverner donc damay lancer appel à mon frère Aliou Diouf na ñëw ñu and liggéey pour njëriñu commune bi ndax kat Benno Bokk Yaakaar la bokk c'est la triste réalité donc nak mono bok Benno bok yakar au niveau national nga au niveau communal da ngay xeex pour toujours xeex nga ba élection euh, locale yi législative yaa ngi ñëw présidentielle yaa ngi ñëw dama koy lancer appel na ñew ñu and liggéey pour l'intérêt de la commune. ok voilà kon Niakoul aussi mom dina dégg message bi nga xamante ne moom nga ko lancer mais aussi ginnaaw élection yi waxon nañ ko fi moy séparation bi am ci euh, ci li nga xamante ne mooy opposant bi et aussi ñu gis ni élection yi ren bu doon dañ ko boole da doon ñoom dañoo boole woon kon xëy na aussi dugal na recours ak dugal recours xëy na du si ay du du du am ana ban message nga leen di jox par rapport ak li nga xam ne jot na fi xew. waaw bi ñu defee émission avant élection yi lan laa la waxoon dama leen ñoom nañu wax askan wi li waral ñoom ñu tojante bopp ba tas ndax benn coalition la ñu amoon ndax lan intere yi du benn population bi ñoru leen. seen bopp moo leen ñor mënoo ne population bi laa bëgg élection la ñu jëm monsieur le maire kat yàgg na fi am na expérience pour jëlee ko fi du yomb mënoo leen doon benn bu leen loolu bu leen ñoroon wala ñu gëmoon seen kàddu yooyu dañuy doon benn mais li leen di wan ne ñoom seen bopp rek moo leen ñor dañoo mujjee xaaj ba ñu am cinq candidats seen biir loolu moo waral ñu jaar leen fi ñu leen doon jaar rek te man xamoon naa ne noonu lay demee xamoon naa ne ñoom mënuñoo fexe ba doon benn parce que bu dee kenn ku ne

donc nak loolu non pour mu am n'ak damay wo samay camarade yoy samay frère yoy ndax kat man de en politique awma ci ben non adversaire la ci am te loolu la ma sa gem duñu ay non mais ay adversaire politique lañu politique bi jeex na nañ ñëw and liguey pour l'intérêt de la commune mhm. commune bi romb fi mu nek te gem nañ ne bu ci kenn ku ne dugalee sa loxo loolu day soti voilà. ok ñu ñëw liguey commune bi n'ek li nga xam te ne lay woté ginaaw loolu aussi tamit ñu joxe kàddu gi mujj tàggoo ba beneen yoon ñu bàyyi la nga daal di def sa mot de la fin ñu tàggatoo ak mbokk internet bu KMTV waaw temps bi eh, xat na gënoon nañu bëgg mu xaw a gudd euh, pour ñu développer mais comme li ñuy wax rek li duuf si nag nag bi xajul si cin li li ci ëppoon solo rek mooy comme ni ma la ko waxee sànq euh, ñu gërëmaat encore une fois man la population de Thiamouss d'une manière générale awma seen fay maak responsable yi mu nekkal ci liggéey bi di ma permettre rek ma am ñu ma ci tudd bien vrai que sax xaw ma habitude di lim mbaa parce que groupe buy ànd boo limee rek desal mais am jàmbaar yoo xamante ne bu ñu amee fit ba taxaw élection yu ñu dem yàlla suturaal ñu ñu gagné Thiamboor dañ ci joué benn rôle bu am solo am ñoo xamante ne moom la ñuy gis ci terrain bi am ñoo xamante ne ñu ngi ci suuf di liggéey Maguette Fall maa ngi koy ziar Père Malick Pape Ciss Jigeni di jaajëfal surtout seen taxawaay ak seen pas pas maire Oumy Ba taxawaayam tayalul benn yoon euh, ñoom xaj taw ñoom Ami puy ñoom Adja Baaw surtout nekkoon conseiller municipal bi yoon mu ne dama leen di gunge yeen xale yi ngeen dem mais terewul mu xar ci tànk tubéyam ñu def lu ñu mën ak lu mënul ñoom Ami ja sama yaay booy Faama ak ñépp ñoo xamante ne dañoo am pas-pas jàppale la maire Momar siis ba mu gañewaat Thiambo ba ñëpp di waaru sax lan nii lan la demee lii lu xew mais sant naa ñëpp ñëpp am na ñoo xamante ne sax bëgguñu tudd seen tur parce que li ñu gëm loolu la ñu gëm kenn mënu leen a dévier ci loolu mais taxawaay bi amoon na solo ba ñu gañe dama koy wax gars yi toujours élection comme final la duñ ko joué mais dañ koy gañee yàlla dogal na nag loolu ñu ngi ciy liggéey depuis des années ñuy am résultat bu positif di gëm ne nag élection yii di jëm day gën a yaatu rek incha allah score bi day gën a métti si gars rek. voilà di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la jaajëfalaat ci déplacement bi ak équipe bi nga àndal yëpp di leen ñaanal euh, li ngeen mëbët ci seen site internet bi yàlla jox leen lu kawe seen njort pour intérêt wu commune Kër Moussa ndax population bi ngay liggéeyal donc maa lay sant di la gërëm merci beaucoup. voilà jaajëf mbokku internetu KMTV ñu leen di jaajëfal di leen di daje beneen yoon. di jaajëfal képp nga xam te ni jàpp na ci liggéey bi di leen jaajëfal di leen wax jaa ngeen jëf. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wóor te